arab muy jàngale woon rek ne àddina xewalam du sax te lépp luñ ci yëkkati balaa yàgg dina ràpp su may gis de moom du foofu sant yi ci kii bi lay xool di di di wax tombee rek li ci bi sallallahu alayhi wa waxoon abu hurayratu ne ko kaay ma wan la àdduna di ci biiram yóbbu ko ci ab sën yàlla feeñal ko fa boppi doomu aadama yu der ba fulleeku mu des yaxi kese feeñalal ko fa ay yére yoo xam ne dafa ràpp yonent bi sallallahu ko ay yére yu funux maanaam yére yu dem ba ràpp ak ay yax ak ay tojal ay cabinet ne ko àddunaa ngi nii yax yi ngeen gis mooy bopp yi dañ daan mbébét yéen ni ngeen di mbébétee di yaakaar ni ngeen yaakaaree waaye mujj nañ rek di yax yu àndut ak benn der yax yére yu ràpp yére ngeen gis moo doon yére yi ñu doon noosee doon ko fuugarewoo ak seen i yi mu ngi nii fii rek la mujj ñam yañ doon xewaloo doon ko lekk muy tànnee fi seeni ñam mooy cabinet yi ngeen gis nit ñi di ko daw di ko sori yax yële ñoo doon daaba yañ doon war doon ko ndamoo muy ko àddina yëpp fii lay mujj maanaam lu xees lu nekk rek dina ràpp moom nag waxoon na ne moom ku xam jamono la ku ànd ak jamono xam la cay xew lépp kon na déglu ay ndénkaaneem lam la wax mooy laa taaman bul wóolu ak daxara jamono alxaw na bay waraakoon fa innahu naka moom maa zaala mosu dañ yu addi di yar li rijaali ñeel góor ñi man bu njëkkoon foofu lañu commencé mu ne moom xam na jamono lam lay njëkk wax mooy bul wóolu jamono bi nga xam ni warkat la maanaam bul yaakaar ne jamono du dal sa kaw ba mukk ak lu la yàlla mën a may jamono mën naa wëlbatiku soppeeku ndax kat yàgg naa yar ay góor yu bew firawna bewoon na ba ne moo yàlla mujj lu mooy ñu naq ko ci géej gi rek mu dee benn yoon kon lu jamono neex neex bum la tee nekk nit ki nga war a doon moom la borom a xam wax ne na nga suufeel sa bopp walaw albasaka dahru ak taaja jële jamono daf laa soral mbaxanaam buur nekkal nit rek ndax lum la mën a jox bi dina ñëw mu digg mu nangu ko lu dul xam yàlla daal dana jeex nga soxlawaat wa awaqibul ayaami te mujjëg fan yi fi lazatiha nekk na seen bànneex xusasun fot moo xam ne yazillu dana torox biyaa ci moom al ahsu ka gën a tedd al anjabu ka gën a foor fan yi même bu àndeeg banex mujj ga comme fot la fot moy nga lek mu tak ca put ga munu jall fot la go xamne ne nakar la go xamne ne ci gënoon tedd du mujj lu moy ci torox ci gënoon for ala al an jëbu mooy al anzu ben la moy ci gën tedd rek du mujjee lu moy ci torox bu fekke banexi aduna rek nga yoron do mujj lu moy ci torox ndax torox rawatu liggéey sonn ci lool ñu génnee la kër gi nga xam ne yaa ko tabax xañ la oto bi nga xam ne yaa ko jëndoon soxna yi nga xam ne say soxna la dem nekk ak yeneen i góor te mënoo ci tus ñu jël la nag gas ba mu ñu dugal la fa séddoo sa alal nga deseeg mbugal ma dégg nga ak regle ga ñeneen di ko jariñoo dëgg toroxtaane rawatu ko te foofu rek la jamono di mujje bu fekkee nekkaloo woon yàlla nekkal yàlla daal mooy waral mujj gu rafet waaye ku nekkulul yàlla bànneex gu mën a am ci toroxtaane lay mujj googu ma wax nag mooy toroxtaane dee waaye léegi-léegi nit yàlla dana ko def boroom alal joo xam ne fu mu génn ñëpp xool ko xooli nu diw am na alal mujj ñàkk ba boo ko xoolee dam ko yërëm toroxtaane ngoogu dal na ko léegi-léegi yàlla nit dana ko may nguur dégg nga nguur gu màgg gu rëy mujj rek folli ko ci loxoom mu naqadi ko lool métti ko lool waaye yàlla folli ko mu doon atte nit ñi tey moom la ñuy atte mu doon dogal ci kaw nit ñi tey moom lañuy dogal ci kawam moo doon wax jaar leen fii tey moom la ñuy wax jaaral fii bul jaar fii mujj nag yore dund ci toroxtaane googu moo tax àdduna amut amut amut amut solo bànnee lépp ci toroxtaane rek lay mucc bu fekkee it bànneex boo doon bànneex wala yàlla foo liwut ko sax fa mu mujj rek mooy waxiila baynahum wa bayna maa yastahuuna yàlla dafay dox digganteeg nit ñi lañ bëgg nit ku nekk la nga bëgg sa digganteeg loolu yàlla dana mujj dana ci mujj dox bu dee lekk nga bëggoon danga boo dundee léegi tey nga dem ba nga xam ne màggat dana ñëw ñam bi la gënoon a neex bëggatoo ci ma bëggatoo ko mënatoo ci dara soxna si nga gënoon a bëgg bëggatoo ko mënatoo ci dara waxi la bay num bay na maa yastahuuna ñëw na dégg nga dara dootu la safati ci àdduna dara dootu la neexati ci àdduna loolu foofu rek nga jëm moo tax bànneex yi foofu rek lay mujj loolu amul solo kon fa alayka maa ngi lay dénk taqwallahi ragal yàlla kon nag la ma lay dénk mooy nga ragal yàlla looloo am solo daw ci gannaaw yi bànneex kooku du tax sax nga am bànneex ndax koo mën a doon doonal ku la neex donal borom xam-xam doonal wëlli yàlla doonal kàccoor doonal buur doonal borom alal donal ku la neex tey nga am lu la neex suba nga am lu la naqadi rek ngay dund ba nim jóge doo ay jafe-jafe mukk lépp looy wuuti di ko yóotu yaakaar ne bis boo ko amee naqar jeex keroog ba mu ko amee da nga gisaa yeneen naqar yoo xam ne xamoo fu mu jógee parce que noonu la yàlla bindee àddina li Cheikh Tidiane wax rek moo ci am mu ne comme ndoxam géej la wàllu woo ko tànkee mu weex àdduna noonu la mel ndoxam géej nga tànk ca pegg ba naan mu saf xorom nga tànk ca digg ba naan mu saf xorom nga tànk lu bëri naan mu saf xorom nga am ci lu tuuti naan mu saf xorom du mos a neex nii ko yàlla bindee kër ak natt kon bul daw ci sàkki banexi aduna dawal ci wut ngërmande yàlla ndax lool la la yàlla sant ma aduna daf na la fexel bu mu la nax yàlla mi ko bind sax moko ñëk ngañ moy ci len ko kat bu mu len nax fala taghurannakum xayaatu dunya ngene ko pourtant rafet na yoonu ne waaw waaw inna dunya hulwatun khadiratun aduna dafa neex ci bakkan bakkan yépp ko bëgg mu rafet ci bëtt bët yëpp di xool jëm ci fa inna laa mustaxlifakum fiha mu ne yàlla def leen la ngeen wutu ko ci li yanzura kayfa na pour mu xool naka ngeen di def ndax da ngeen bàyyi lu rafet loolu ngir yàlla wala boog da ngeen ni mooy yàlla ngir am lu rafet loolu ma ndax da ngeen xool li leen yàlla sant ngeen nekk ca wala ndax da ngeen di fàtte santaane yàlla yi ngir bànneexoo bànneex yooyu looloo war a yàlla defee ko noonu ndax nattukat bu yombee nekkatul natt mais yàlla daf koy defar mu neex ci bët neex ci xol neex ci bakkan nit ki soxla ko ba pare nag léegi-léegi mu am yum la ci aaye wala boobu mooy la wuutee ko nii bu ko wuutee nii mu xool ndax da nga mooy yàlla ngir àdduna boobu wala da ngay topp li la yàlla sant ndax moo la gënal àdduna boobu ndax da ngay wut àddina boobu ngir dëgërloo ko sa digganteeg sa borom wala boog da ngay wut àdduna boobu ngir daw ci ay bànneexam loolu la yonent wax mu ne la waaye fa taq dunyaa ngeen la ragal leen adduna kon adduna yàlla daf la ko ragalloo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ko gën a xam ñëpp loo ko ni ñi kon lim lay dénk loolu rek la la yàlla denk mooy fa alayka maa lay dénk taqwallaahi ragal yàlla mooy xool li yàlla digle gannaaw ba nga ko jàngee ba xam ko nga nekk ca gannaaw ba nga jàngee ba xam yàlla tere nga góorgóorlu ba nekk ca falzamha na nga taxoog loolu tafus da nga texe foofu rek la texe nekk inna taqiya naka aji ragal yàlla foofu moom albahiyu mooy aji taaru al ahyabu mooy ki ki gën a wegu manaam ki gën a raglu nit ku raglu koo xam ne du ku ne ko ñeme ba pare rafet mooy ku gën a ragal yàlla mais nekkut taar yi bitti yi nga xam ne nit ñi jàppee nañ ko taar loolu du taar mais ragal yàlla mooy taar léeg léegi nga gis nit koo xam ne ni nit ñi ñi ngi jël photom di ko taf ci néegi amaana nit ki jël photom te di ko taf moo dàq ka muy taf ci jëmm waaye këlee ko gën a rafet foofu ndax da koo gën a ragal yàlla boo taajoon photom ak photo waajee di ko jaay moom kenn du jënd photo waajale moom nit ñeme naa fay xaalis jaral na nit mu fay xaalis ngir garder photom ko xool rek su defee taar boobu lu ko ko may ragal yàlla ga mais du taari yaram taar ragal yàlla beneen affaire la su ko defee ragal yàlla mooy taar dëgg ca yàlla bal sax nit ñi dañuy gis taar boobu bëgg nit ki te duñ xam lu tax ñu bëgg ko mu rafet ak ñoom te pourtant ñoom ñoo ko dàq bind loolu ragal yàlla moo koy maye dégg nga yow ñemoo sax xool ne diw maa ko dàq te pourtant yaa ko dàq waaye nag moom moo la dàq parce que moo la gën a ragal yàlla inna taqee nag aji ragal yàlla xoo moom al bahiyu ma aji taaru alax yëbu mooy ku weggu ko xam ni du ku ne moo koy ñeme ndax yàlla dafay sànni ragal ci xolu ñi nga xam ne dégg nga eh, hegguñ ca maqaama gaayam ña ba boo jàkkaarloo gaa yooyu doo leen ñeme parfois nga am soxla ci ñoom sax ñëw ba yegg si doo mën a wax sa soxla dara mayul leen ko lu may ragal yàlla nit koo xam ne yaa ko ëpp doole fuuf gën koo njool ëpp ko kattan waaye boo jàkkaarloo moom da ngay sëgg doo ñemee sëgg sax xool ko su waxee nga gaaw daw dem defi ko su santee nga def su teree nga bàyyi su meree nga jaaxle su kontaanee nga bëgg ah loolu beneen mbootam ci biir te mooy mbootam ragal yàlla mu ne kon na nga taxaw ragal yàlla ragal yàlla nag li ci njëkk mooy nga woolu ko wóolu ak xamam wóolu lam dige ndax boo gëmul ne li yàlla dige lu am la doo ko mën a ragal doo ko mën a topp moo tax yàlla ba mu ne falaa taxurannakum alxayaatu dunya ngella bu leen àddina nax wala yaxurannakum billahi alxaruur ngella bu leen seytaane nax ci di leen digal lu dul daf ci teg inna waadallaahi xaqun yàlla digee dëgg la inna waadallaahi xaqun yàlla lim digee dëgg la lim digee dëgg la lim digee mooy ku dee dana la dekkil kenn ku nekk la nga doon def ci àdduna yàlla dana ko fay loolu ñun ñëpp ñi ngi janoog moom waxuma ne ñu ngi janoog lu ci gannaaw dee de waaye yàlla wan nañu lu gën a yéemeeg la ca gannaaw dee kon mu ngi mel ni hmm? Hmm. na ma xaalis sànni kon ñu ngi mel ni rek ñu ngi janoog ñu ngi janoog loolu ndax yàlla wan nañu lu gën a yéeme li gën a yéeme dekk waaw kenn danaa def nangam ba pare wan la lu gën a yéeme loolu kon kay janoo nga ak loolu rek ndax janoo nga ak lu gën a yéeme li gën a yéeme dekk mooy toq mën yi boo xam ne am ndox rek la ndox rek jàllar bi ku nekk lumbu deret jàllar bi ku nekk suux am yax mu awee ko mu muuree ko yàpp yi awee ko der defal la bët def ci leer goo xam ne gis rek la mën defal la làmmañ nga di ci wax gémmiñ nga di ci jariñoo yu bëree bari nopp nga di ci déggee loxo nga di ci defee lu bari awra nga di ci tuureen génnee yu sobe yi tànk naka noonu maanaam ni bind bu organisé bi daf lay wóor ne lii borom xam-xama ko bind oto bu la romboon rek nga xool ni mu woo da nga xam ne dëgg dëgg kat oto bii dafa am ku ko defar rawatina doomu aadama ni mu woo bind moomu am na am na loxo bu nekk ci ci gannaaw addina bi lépp organisé wu tamit xoolal benn ndox ndoxam doomu aadama nit rek ci juddu ndoxam ganaar ganaar ci juddu nenu ganaar ndoxam bàyyi may xar mi xar lay jur béy bi béy lay jur ganaar gi ganaar lay jur pittax mi pittax lay jur loolu du par hasard am na doole ju nekk ci biir di doxal lépp borom xam-xam boobu nag ku xereñ boobu dëgg-dëgg du bind àdduna am ñu fi nekk di la jaay doole di la dóor di la noggatu di jël sa alal di def lu leen neex dee rek mu jeex na loolu fara ku xool àdduna xam ne borom doole borom kàttan moo defat lii xam ne lii du hasard te xam ne it foofu am bis boo xam ne nii faray attee jaam yi ndax àdduna tooñante bëri na fi noggatuwante bëri na fi ñii dañoo jub lool ñii dëng lool nga yaakaar ne dangay def lu la neex rek dee mu jeex yaa ngi nax sa bopp loolu foo la ku am xam-xam bind lii ba pare bàyyi nit ñi foofu ba mu neex leen rek ñu dee noonu mu jeex loolu foo mënul nekk kon moo tax ku am xel xam ne àllaaxira foofu dafa xam dafa war a xam ñàkk xamam sax dafa jomm loolu la yàlla di wax ne afa xasibtum sam xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun da ngeen yaakaar ne dama leen bind ngir foo rek ngeen def lu leen neex mu dee jeex na du ngeen dellu si waat ci man mukk laa dina demeewul noonu kon na nga wóolu yàlla ndax nga mën koo ragal boo wóolu ne àllaaxira dana ñëw borom bi lim dige dëgg la da nga topp ndigalam yi da nga bàyyi tere yi soo ko defee texe waamal na nga jëf bi taati ci topp yàlla tanal da nga am minu ci moom ari daa ngërmande innal muti xanaka aji topp lawu ñeel yàlla mu muqarrabun kuñ jegeel la la day fa moom na nga jëf-jëfi topp yàlla ndax nga mën a am ngërmaande yàlla ndax képp kuy topp yàlla yàlla jegeel la boppam waaye ku ko topp nag mu soril la boppam moom nag bu la jegeelee boppam jox la lépp bu la sorilee boppam da nga ñàkk lépp wax naa na nga doylu fa fi baadil qanaati nekk na ci lenn doylu raaxatu noflaay waxut doylu doylu rek nga ne yàcc rek doo def dara waaye yenn doylu yi noflaay la wala yàsu naagu am naa faat ci la nga ñàkk oo oh, loolu al matlabu mooy càkkutéef ba na nga doylu doylu mooy li la yàlla jox na doy boo bëggee doylu nag da ngay xool lan moo la fi tax a ñëw yàlla bindul la ngir nga lekk bindul la ngir nga naan bindul la ngir nit tagg la bindul la ngir ñu boole la yëgal la xew yeeg ngeen ci yeeg nangam ba yow boo ñàkkee buñ la yëgalu dara mu métti la yooyu taxul yàlla bind li tax nga ñëw fi mooy jaamu yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illa lépp looy dëgërloo rek la pour mën a jaamu yàlla waaye du loolu mooy sa càkkutéef lii sa càkkutéef mooy jaamu yàlla kon nag na xool rek lu xew lan la la mën a yàqal sa digganteeg sa jaamu yàlla yi bu dee mën na laa gàllankoor sa digganteeg sa jaamu yàlla jéem koo teggi loolu musiba la ci yow su fekkee nag lii xew mun laa yàqal dara sa digganteeg sa jaamu yàlla yi sa yoon nekkul ci parce yàlla bindul la ngir loolu kon bu la yàlla joxee loo xam ne dëgg dëgg nag mën nga cee dund ba mën a jaamu sa borom am néeg boo xam ne mën nga faa nekk ba mën a jaamu sa borom sa digganteeg sa borom jële ci war nga def ko suturaal la ak yàlla nag yenn yi taari àddina nag bu la ko xañee xañul la dara ndax lekk gi pour dëgër loolu mën a jaamu yàlla naan gi it noonu ndax boo ko defut doo mën a jaamu sa borom yére yi pour loo mën a sutur loola néeg yi pour loo mën la mën a nëbbu jant beeg tàngoor beeg sedd yeeg yooyu ba a jaamu sa boroom ak dal la soo amee loolu sant yàlla kenn ëppaleetul la dara waaye boo séenee faw saa su nekk ngay ñàkk ndax saa su nekk nga gis loo amut nga gis loo ku la ëppale su ko defee doo mos a am waaye boo doyloo li nga am mu doyla rek kenn ëppaleetu la dara ndax koo doylu la yore ëppalewul la dara waaye koo yaakaar la yore nag kooku la ëppale kooku moom mooy sa buur moo tax mu ne yenn doylu noof laa yaa ci waxul la nag doylul nga ne nga ne ci rek yow defoo dara góor góorgóorlu pour dara dara dara dara déedéet parfois nit yàlla samp ko ci maqaama boo xam ne ni moom du pour boppam kese waaye pour famille bu yaatu la pour njaboot gu yaatu la pour ay nit la kooku dafay liggéey di liggéeyaaleel ñooñu loolu la ibnu imrul qaysi di wax ne walaw annama asan li adna maichatin kafaani walam atlub qalilun min al mali bu doon damay dund dox rek ngir sama dund ak sama bopp konoon li ma am doy na ma mu ne waaye du ma sàkku nguur mais man nag damaa bëgg tabax teraanga goo xam ne nii sama giir yëpp dañ ciy xaj ñoom laa bëgg a teral ñooñu loolu yëngatu googu loolu du ñàkk doylu loolu baax na mais lu tax na nga def loolu def parce que yow xam nga ne bu dee yow sa bopp am nga lu la doy mais da liggéey pour dimbale yeneen nit yoo xam ne nii yow lañ yaakaar loolu moom ci jaamu yàlla la bokk waaw loolu nga bañ koo def loolu tekku doy loolu moom ak sàggan la waaw mais lu nga am mu doy la doo xool leneen lu nit am doo def loo warul def loolu mooy doy lu mu ne na nga ko def mu ne soo ñàkkee dara nga fàtte ko jàpp ne lii bokk ci loo war a am jàpp ne sax dégg nga loolu mënu laa jëriñ dara mënu laa lor dara mu ne loolu mooy càkkuteef bi dëgg-dëgg ndax li lay lor yëpp yaa ko teg sa bopp yow doomu aadama bi te dara yóbbeewul ko lu ma yaakaar lu yàlla te yàlla def laa bind ngir nga yaakaar ko moom kese xawate it jëmee ci ñëpp yaakaar ko moom kese di leen yéen a ngi jëflante seen biir waaye kenn waru yaakaar kenn kenn waru wéedu ci kenn kenn waru sukkandiku ci kenn yàlla rek mooy yaakaar waay ndax njëriñ ak bind na ko njëkk sa jut yonentu ne xeet bi yëpp buñ jar dajee woon pour jëriñ la lu yàlla dogalul du ñëw kon kay ñoom li ñu def it dafa fekk ne yàlla dogaloon na ko rek waaye bu ko yàlla dogalul mënuñ ci dara te bu ko yàlla dogalee it mënuñ ci dara kon ñoom jariñu la xeet bi bu ñu dajee woon te xeet bi band yaa ngi fi saay-saay yaa ngi fi borom xam-xam yaa ngi fi lasraarkat yaa ngi fi wëlli yaa ngi fi buur yaa ngi président yi ñëpp buñ la bëggoon a lor te yàlla dogalul ko yonentu ne du ñëw parce que rufiatil aqlaam big bi yëkkati nañ ko téere bi woona kon lan la yow yaa njort lu nekkut min fa mbir yi di feeñee nga bàyyi ci sa xel bàyyi woo sa xel kay feeñal mbir yi bàyyi woo sa xel kay def mbir yi loolu moo la sonal te loolu lu naqadee dindi la ci doomu aadama doomu mënoo fexe fexe fexe fexe fexe fexe ba du wéedu ci doomu aadama yi mënoo fexe fexe fexe fexe ba du yaakaar doomu aadama yi mënoo fexe fexe fexe ba du naa feq diggante ak doomu aadama yi te wallaay ñooñu jariñuñ ko loruñuñ ko dégg nga ki nga xam ne xamoo ko aadama ak awa boo ubbi woon sa bitig mu romb la fa jënd bitig bi la gën a jege doo ko mere danga yaakaaroo ci moom njëriñ séentoo ci moom dara waaye ki nga xam moom muy sa waay bu la romboon dem jëndee ci beneen bitig nga mere ko ah fii la ma romb du jëndee ci ci kee la jëndee te kee mën naa ba da nga yaakaar ci moom njëriñ rek loolu la mais boo yaakaarutoon ci moom dara bu la defalul loolu du la na ku la ko defalul la ki la gën a jege bu la romboon nuyuwul la danga am loo yëg danga mer waaye jàmbur boo yaakaarul ci moom dara séntoo ci moom nuyu bu la rombee nuyuwul la doo ko def muy dara jëlal mbindeef yëpp na nga def leen comme noonu waaye nga jëflante ñoom jëflante bu rafet su ko defee doo séntu ci dara lu ma yàlla su boobaa sa naqar mën naa wàññeeku wala boog dootoo amati sa naqar bu dëggoo ci yow xal bu bu loo amul rek nga jàpp ne lii bokkul ci li nga war a am bal sax loolu mënu laa jëlee mënu laa lor bal sax nii la ko yàlla bëggee du pour yow yow moo moom mbindeef yàllaa leen moom nii la leen doxalee yow lu ci sa yoon soo melee noonu danga am jàmm moo tax mu ne wala yaasu maa faata ci la raw foofu loolu al matlabu mooy càkkutéef bi loo amut amoo ko te bu ko séntu way daa temente boo xememee xemem mooy bëgg gu ëpp soo bëggee ba ëpp danga nga defee noo warul defee ku siita daañu la odd saw ba ma saw ba mazalat ni yëréb toroxtaane ndax daañu la toroxal ba sonn da yaakaar ne yow da nga xemem doomu aadama yi doomu aadama yi boo leen xememee ñu jaam loola adduna it boo ko xememee mu jaam loola boo leen waree gannaaw nag ñoom ñoo lay topp sax ku defal la yàlla dafa wax adduna loolu la ko bàyyi waxee ne ko liggéeyal liggéeyalal ki may liggéeyal nga toroxal ña lay liggéeyal moo tax kuy liggéeyal adduna dëgg yàlla ci toroxtaan rek lay doon lay lay dëkk gisoo ne président moo gën a rëy ci ma tànk yi wala ab buur wala ci gën a rëy bokk mais nit dina nekk président après ñëpp jéppi ko muy def yu suufee yoo xam ne nii ni doole bi gën a sori mënu koo def wala bëgg koo def muy toroxal boppam ngir àdduna te pourtant jox na ko ndoom mu tànk yi gën a kawe xeme moo koy waral bëgg àdduna bopp falaxat ku si odd nañ sawbal mazalati yërëb toroxtaane ashab bu kañu wax ashab ku seeneen loon lu mu gis yaakaar ne moom moo ko war a am lu gis yaakaar ne war nañ ko ko jox ba kenn tegatul ko fen buñ daan misaal ku torox dañ koy misaale ashab dara waru ko lu may séeréer mos naa wax xale yi dem leen ci gannaaw kër ga fële ñu ngi fay séddale di fa joxe sarax xale yi daw di dem mu daw topp xale nag pourtant mën naa am mu wax dëgg nag mën naa am ñu dem fekk fa sarax ndax benn waaye bi defar per mu ne ko na per yi dijji mu ne ko yow da koy jënd après mu ne ko jëre jënd mu de waaye ki koy jënd mën naa am mu may ma <laughs> loolu mooy séeréer bu ëpp lu nekk nga yaakaar na war naa mën a ñëw ci yow loolu moom mooy seeneen boo jàppee nag li yàlla dogaloon ci yow rek mooy ñëw ci yow qul lan yusibanaa illaa maa kataba llaahu lanaa nga noppalu wa tawaqa mus moytul min xadri nisaa yi ci war ak jigéen xiyaanatun ak xor moytul jigéen ñi war la fa jamiun na ñoom ñëpp makaayidu ay fiid la tun sabu ñuy samp lakkañeel mu ne jigéen ñëpp ay fiid lañ pour yow kon moytul pexem jigéen jigéen ñépp nag waaye nag axlabahun lañ si ëpp la bu waxee ñoom ñëpp axlabahun na la ci nam waaye du ñàkk yàlla bind na ay jigéen ñu baax ñoo xam ne ndimbal lañuy doon ci góor gañ nekkal waaye ak ñoo néew ñu ëpp ci ñoom xorkat lañ ay fiit lañ ñeexal lañ àdduna lañuy wut te dañ la xommat jëmee la ci bëgg àdduna boobu ba dox sa digganteeg sa boroom di la am nañu baax comme xadijatu jigéen la woon waaye jigéen gënu ko woon dimbal na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba yàlla jox ko kaddu ci aljana kooku taxul ñuy wax dégg nga asiyatu bintu mazahim jëkkëram bonoon na lool waaye bu ko toppoon jub jigéen gënu ko woon ndey Aysatu jigéen gënu ko woon jigéen ji nga xam ne jëkkëram dafa ñàkkoon dajeeg ab yonantu yonantu jamono jooju jëkkër dina ko ñaanal ma ma am dégg nga mu ne ko yàlla dogal na ne sa genn wàll dund da am genn wàll ga nga ñàkk léegi nag tànnal bu la ci neex nga njëkki am wala nga mujjeeku waaye ji ne ah ma laaj sama jabar jabar ju baax la kon xelam jigéen léeg mu jariñ waaye su baaxee ma laaj sama jabar jabar ji ne ko na xaalis bi ñëw léegi xam nga bu ñu bëri ñu ne ah, kii bëgg àddina rek ko jàpp fekk xel la yore naa la ji ñëw léegi jëkkër ji ne ah, am ba pare mujjee ñàkk métti na te ñoo njëkkee ñàkk mujjee am mu ne ko ne mu ñaan yàlla mu ñëw léegi mu dem na ko ñaanal ma yàlla ma am léegi mu ñaanal ko yàlla waa ji bëri alal ñaan du indi alal am na yonent defal na ko sans la bëtu waaye moom dafa mujj beew jigéen ji waa ji may wax defal nañ ko ko bañ ko ñaanalee alal ji bëri su ko defee jigéen ji ne ko kër goo tabax tabaxalal miskin yi kër gu mel noonu lekk goo togg pour sa bopp toggal lu mel noonu pour miskin yi yére boo sol pour sa bopp ñawal lu mel noonu pour miskin waa ji dëkkee loolu ba dundam xaaj ñàkkut yonentub jamono ju yónnee ne ko yàlla de sa genn wàll dund la dogaloon pour nga am waaye nag ba mu la joxee fekk na la ngay kuy sant yàlla mu dolli la sa dund yëpp da ngay am loolu jabar ju baax tam moo ko ko yóbbee kon du jigéen ñëpp mel nii contraire jigéen ju bon kooku moom mën na la yàqal lu ne mooy misaalam waa ju dem ci yonent bi jamono ne ko ñaanal ma yàlla mu ne ko yàlla may na la ñetti ñaan yoo xam ni yow bu la neex nga ñaan ci ñetti mbir yoo xam ne boo ko ñaanee yàlla nangu la yaa xool na ñetti yooyu ñaan waaye may na la ñetti ñaan yu nangu mu ne ko ma laaj sama jabar jabar ju bon la mu dem jabar ji ne ko ah nag may ñaanal rek ma dàq ci àddina bi gën faa rafet mu ñaanal ko ko yàlla nga fi gën a rafet jabar ji taaru ba taar bi hem ñëpp bis ñëw mu seetu gis boppam mu rafet mu xool jëkkëram mu ñaaw mu ne ko dëgg-dëgg daal yow méritoo ma yelloo ma damay tas jël samay bagage dem seeti buur bu ma méritoo ma seeg moom waaye yow moom du ma seeg yow jëkkër ji wax wax mu takk bagage ne dafay dem jëkkër ji ne ay wax mer ne denc naa ñaar ak ñaareel gi mooy yàlla na la yàlla def golo ba mu ñaanee yàlla def jigéen ji golo doomee jooy ñëpp di jooy mu ne lu ci pexe ñu ne xanaa ñaan gi des nga ñaanal ko mu mel na meloon mu ne yàlla mel na meloon mu mel na meloon ñetti ñaan yëpp dem na ci zéro dara yóbbeewu ko lu may jabar ju bon kon su ko defee jigéen ju bon lu jaram moytu la moytu ay xalaatam moytu jigéen ju baax nag moom jar naa déglu dégg nga laata ma ne bul wóolu alunsa ñu ëpp ci jigéen ñi firee ko noonu xayaata ka sa giir ak dund innaha naka jigéen kal afwaani kal afwaani comme jaanu ñàngoor yuraahu dinañ tiitloo mi ni ci moom andiya bu ko gën a sell gaynde gi nga xam ne dafa am sell wu rëy mën naa jàkkaarloog jaanu ñàngoor tiit waaye jigéen it mën naa teg stress jàmbaar ju kawe ci yàlla mën naa fekk nit ku foor mu teg ko ay njàqare yoo xam ne yàlla rek a xam nu mu wala mu dugal ko ci ay problème yoo xam ne yàlla rek a xam nu mu mu ngi noonu jigéen mën naa fitnaal ku nekk la bëgg a wax ku nekk rek fitna jigéen mën na laa fitnaal bu la bëggee fitnaal waaw bu la yaramut bëgg laa fitnaal bëgg laa teg problème kooku mën nga cee bañ a mën dara moo tax yonentu daan wax ne man gisuma ku gàtt xel ak diine ba pare mën a yóbbaale góor gu am xel te ñaw lu mel ni jigéen moo mën a fekk ku muus ku kawe ku foor ku am xel mu fexe ba jaarloo ko ci yoon woo xam ni yow da nga naan déedéet xanaa du waa ji te moom ku gàtt xel la ku manqué diine la lu yonentu daan na wax ne ne laa xayra fiihinna wala sabra anhunna amuñ benn yiw te kenn mënu leen a mujj maanaam mënoo leen a bàyyi te daanaka boobu ko xoolee daanaka dara ne ko fa su ko defee noonu la leen yàlla bindee mu ngi noonu mooy tuub seen i xay waaye rek am nañu yiw laa tàmman bul wala um saa jigéen zamaanaka sa jamono kulloo lépp walaw xalafat di la gëñ na yow man ab bis ya miineen aw ngëñ tag si day fen mu ne bul <laughs> bul sa dund yëpp bu la gëñëree sax waatal la ci yàlla lam la wax du dëgg loolu nag du ñëpp waaye ñu ëpp ci jigéen ñi noonu lañ mel nga ne ko lu tax loolu lu tax bu ma gëñëree du mu ko nangul mu ne ndax tuxur yi dafa lay xiir bi lii ni xadiisiha ci waxtaanam wu nooy wax wa kalaamiha ak waxam ju nooy ja waaye way saa satar bu la songee fa yee moom a saqiilu mooy jaase jañ namm ja al astabu bañ def rëdd jaase juñ namm mooy juñ ñawal ba mu ñëw def ci ay rëdd muy melxati ñëw lool bu dalee sa kaw métit bi mu lay bàyyee moog métit bi lay jaas joj di bàyyee ñooyem bu waxtaanee yow waxtaan wu nooy dégg nga dafay rafet rafet rafet ba yow da ngay xiir ci moom dégg nga yaakaar ne kii daal mooy sa lépp waaye bis bu meree wala bis bu dalee sa kaw nga naan déedéet xanaa du waa ji la kon mu ne lum nooy nooy nooy waxtaan ak lu waxtaan ba rafet rafet moytul xaywa dégg nga wabda mu pare ci jigéen ne wabda na nga tàmbali adduwu ko sa noon bi taxiyati ci nuyoo wal takku na nekk na nga nekk zamaanaka sa diir ak jamono xaayifan daaji ragal te taraqabu di fooglu minu ci moom mu ne boo amee sa noon boo dajee moom njëkk koo nuyu dégg nga wolof dañ naa ah, wala boo arabi dañ nañu wax ne boo dajee sa say noon del muuñ dégg boo leen rombee nuyu leen te nee na saa nekk dee ko moytu ragal gi lim ci na mooy moytu waaye ragal moom yàlla rek lañ ko war a def waaye moytu moom mën nañ ko def mbindeef ragal ak mbindeef mooy moytu ko buñ la waxee ragalal mbindeef bi mooy moytu kon del moytu sa noon sa diir ak jamono te di bàyyi xel ne saa su nekk amaana muy tegi plan pour yàqal la ndax su boobaa yi muy def man na laa doon lool nit ki xam ne kii mën na la tegali pexe pexe mi di la gaaw ndax fekk na sóoraale nga ko bu yàgg waaye koo sóoraale wul ne mu ngi teg pexe ah pour mu pexeel la ba buggal la dafa yomb dégg nga noon bi ci jiitu nag mooy bakkan mu ne wax darhu moytul noon bi in laa xaytahu boo dajeeg moom mubtasiman muy aji muuñ wala mutabassiman muy aji muuñ dafa lay su gaynde yabdu dana feeñ naa buhu sellam is yaxdabu jamono ba muy mer mu ne bul dajeeg sa noon mu muuñal la kanamam génneel la bëñ yi wax la wax ji rafet tax moytoo too ko bàyyiwoo ko xel nga ne kii sama soppale déedéet mu ne ndax gaynde bu mere sell yi day feeñ manaam bañ yi day feeñ waaye bañ yooyu muy feeñal du feeñalu mbégte waaye feeñalu mer la inna al aduwa naka noonu wa in taqaadama di la jiite na di yàgg na ahduhu dëhalam maanaam jamonoom dégg nga jamonoom fal xeq du soxar ga baaqin aji des la fi suduuri ci dënn ya mu bu lu nëbb la ci dënn ya <clears throat> noonu lu mu yàgg-yàgg mañal gang ci dënn ba mu denc ko fa maanaam dafa bëgg wax ne nit ku la bañ kooku ala kulli dafay continuer di la bañ kooku léeb ak la waaye arab jum na ci ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi gën a mag ay noonu noonu démbam lañ noonu démb olof nee na noonu démb bu bu ñu bañoon démb buñ nangoo tey seen pexe jubut noonu démb ñooy noonu tey waaye olof juum na foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ña ko bañaloon ñoo nangu waaye pexe mu jëpp ci lañ nangoo nangu gu dëggu ci lañ nangoo am na ñoo xam ne moom lañ gënoon a bañ waaye gën naa gi moom lañ gën a bëgg ci mbindeef yàlla yi kon yàlla moo yor xol yi moo koy wëlbati nit mën naa nekk noon tey nekk soppee ëllëg dégg nga dal na wëlli yàlla yu bëree bëri bëri seen i noonu mujj sopp leen Xaalid ibn Walid xam nga ne la dalal yonent bi xare Uhud yëpp ci loxoom la parce que moo jiitu woon fasi xéeféer yi gis na ña nekk ca dojoo wàcc nañ rek mu wër wër googu mu leen wër ñu wër ndomb jullit ñi ca lañ leen jekkoo ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi dem ci sellam xaalis moomu moo mujj war fasu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yore jaase bi lislaam bañ koy tuddee jaase bi yàlla buñ nocc bi di toroxal xéeféer yi ci kaw ci toori xare yi kooku <laughs> lam daj lam ñu lam ñu daj ci Uhud yëpp fay nañu ko ba ba wis ñu waaye noonu la woon kon mu ngi noonu euh, loolu boo ko doon jàng ci taarix yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay noonam yu jugoon pour rey ko sax mujj bokk ci soppeem yoo xam ne nii wéet nañoo moom te moom lañ gën a bëgg bari na kon lii léebi arab la waaye arab juum na ca dégg nga waysa sadiqu nem xarit ba raaytuhu gis nga ko mu mutamalliqan muy aji yar cofeel maanaam muy wane cofeel gu dëgguwul ci moom wa xarit boobu al adduwu mooy noon wa xaqu xaq ba mu yelloo ci yow daal mooy yu te jënnagu nañ ko moytu mu ne boo amee xarit boo xam ne lam lay feeñalal ci bëgg du dëgg ci moom jàppee ko noonu rek di ko moytu comme ni ngay moytoo sa noon ndax kooku bëggu la loolu dëgg la laa xayra di teg yiw fii wut dimbali imin ci sofe cofeelu ak cam mu ta malliqin bi aj njar cofeel xul wi lisaani ku neex làmmañ waxal bu te xolom yi te laxa mu ngi tàkk amaana nga ne ko waaw sama xarit la xarit la ma wan lu tax nga ne mën naa ko moytu mu ne mu ne la xarit boo xam ne cofeelam dëggut daf koy feeñal te fekk ca làmmañ wa rek la waaye xol bu mu ngi tàkk ngir mer jëm ci yow kooku benn yiw nekkul ci moom jëm ci yow ko nga di nga di ci rey sa tànk bee boo nga moytu ko rek yal xaaka dana dajeeg yow yaxalifu di gëñ annoo ne moom waasiqun aji wóolu la bi ci yow wa ida tawaara bu nëbbuwaan ka waris la foo moom al aqrabu mooy xarit boobu bu jeg yow dafay géñ ne rek la wóolu yow rek la bëgg yow rek la teg fi mu teg fi la teg waaye bu la wanee gannaaw mu ngi lay wax kaddu yoo xam ne comme jiit bu lay matt ni muy safee kaddu yooyu boo ko déggoon noonu lay tàngalee sa xol mu ne kooku du du du du xarit su ko defee jeexal na foofu ci wàllu xarit continuer ci ndénkaane bi defe naa ne mën ñoo yem foofu beneen dot wala ñu mottali xasida bi rek لكم الاشتهاء يمثل البعض دي ولا ينتهي ولا يمثل إن أريد الإسلام ما استطعت وما إلا بالله عليه التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته